lii yéemeeti na te doyati na waar mbokki internet yi ñuy topp saa su nekk ci seen fait divers tey ab horreur bu am ci diwaanu Tambacounda lan leen fa yéenee nit li mbir moo xam ne nag ab ndox moo ko waral maanaam menn morom ma dafa jël euh, ab ndox xëpp ko morom ma ca kanam ga kooka mer génn jaasi daal di dagg loxob droite xale ba mu doy waar loolu deret ja wër ko chaîne horrible la bu doy boo xam ni jamono jile dëkk kaw bi wuyooti turu male bokk ci région de Tamba ñoom dey ci naqar ak ku tiis ak jaaxle lañ na mbokk internet yi ndax lu ko waral benn gune gu am 18 ans di ab sàmmkat moo feejar loxob droite morom ma kooku itam ab sàmmkat la mbir mi nag li ko indi am ndox moo xam ni la menn morom mi wuyoo ci turu àngoom moo ko sutti gunek euh, pël gi wuyoo ci turu i jàlloo kon mu mel ni sax ñoom ñaar erreur lañ def ndax ay kan lañu diggante séeréer ak ak pël mbokk internet yi loolu lañ leen fas yéene nit ay ca ñu dem ci feey coow li am na ci diggante guney sàmm yi bari na loolu ca diwaan ba waaye nag bii moom ni mu mujjee baaxul dara ndax nag dëkk kaw boobu wuyoo ci turu Màlle bokk ci commune Koussanar digganteem ak Tamba toll ci ñeent fukki kilomètre ak ñeent ñoom dey li nga xamee ni xëyee nañ ko euh, cib xibaar diis na loolu ci ñoom gu nekk sàmm gi di wuyoo ci turu i jàllo toll ci fukki at ak juróom-ñett moo daje ci benn barab boo xam ne dañ fay wëgg ay jur maanaam ay xar ak i nag yu ni mel ba mu ñëwee mu fekk fa beneen moroomu sàmmkatam buy wuyoo ci turu àngoom toll ci ñaar fukki at ak ñeent moom àngoom nag ay xaram la yor jëm si woon ci barab boobu doon leen wëgg bi mu yëgsee ci lieu bi mbokki internet yi maanaam ci teen bi mi ngi xamante ak beneen moroomu sàmmkatam bi nga xamee ni nag mi di jot na ñoom ñaar sax ñoo bokk benn añ ndeysaan sekk waxtaan ak xarit daal di fay feeñ ci waxtu woowu lekk ci diggante bi nga xamee ni indi nañ jur yi doon leen sàmm ak waxtu wi nga xam ni lu nu mel am na ci kaw loolu Angom daadi jël ndox mu bare baree bari ci teen bi xam naa kafa ci jugal daa di koy xëpp i jàllo ci kanam gi mu tooy xëppakum ndox i jàlloo gis ni yaram wépp gajaf na te ndeysaan sànq rekk ñoo bokk añ sikk waxtaan yendoondoo kenn ku ne teg say jur te jaas yi bokk ndey ak waaye diggante bu ndaw boobu rek seytaane dugg ci i jàllo mer ba fut mel ni dañ ko dañu ko tooñ tooñ goo xam ne mënta baale mu daal di daw rek wuti a ngom bi mu ñëwee ni ruset jaaseem daal di koy cor angom ci loxob droite bi loxo bi daal di wadd dali nele angom dese ab kuuc am nag ku leen seen ke leen seen nag daa daw ndax ba mu gisee yi jàll rocc jaasi ji wuti angom moom dafa daw daal di wuute war ji wàllu ca ci dëkk ba ba mu yëgsee ca dëkk ba mu rotal xibaar bi waa dëkk ba itam dagg seeni añ ñenn ñi nga xam ne ñu ngi woon ci waxtu añ daa di daw wutali nag ca fa nga xam ne moo di teen ba nuy wëggee bi nu ñëwee ñu daal di gis ni loxo gune gi moom des na fa ñoom nañu def mooy daal di for loxo bi mooy loxo droite bi daal di koy téye gune gi nag ñu fexe nun ko yóbboo ngir nag ñu mën koo évacuer ca l'hôpital régional bu Tambacounda ngir mu def ay soin intensifs ndax li muy xëpp ci deret dafa bari te loxo bi nu sectionné amaana faj ko rek waaye ci àdduna mënatuta amub loxo ndax loxo bi rot na ndax ñee dañ koo for ci kaw loolu euh, ki nga xam ni ab sàmmkat la te def jëf ji def ko moroomu sàmmkatam di wuyoo ci i jàll mu xam ni li mu def rëy na te conséquences yi koy xaar mooy dem kaso ndax acte bi mu def moom ëpp na cor loxob jàmbur mu rotti dal na le moom nag ca la daal di bàyyi jur ya mu doon sàmm daal di namm ay xëlam waaw ni fes ni menteñ ba mu ne fes ni menteñ itam lu ni mel tax na ba kenn mës mënu koo gis waa dëkk ba ñépp mobiliser di ko wër calanu nag daal di jël jur ya nga xam ne bana ko fa muy ay xar daal di koy jiital xam naa yóbbu ci loxo yoon ba ñu demee nag ñu daal di informer brigade territoriale bu Tamba xamal leen ni leen ñaari guney sàmmkat day teen bi ñu doon wëggee kenn ka cor na morom ma ba daw loxo bi nag mi ngi ñu ñu tee euh, kanu cor ab loxo ma nga ca l'hôpital bu Tamba di faju brigade de recherche ba ngeen baal ñu brigade territoriale daal di daw commencé nag euh, daw ca dëkk ba def li ñuy wax constat d'usage ubbi ab l'enquête ba ñu ubbee l'enquête ñu daal di topp rek bañ a tàyyeel benn yoon chaque jour rek ñu ne ci enquête bi benn bis ñu teg loxo moom i jàllo mi def jëf ju jooju ndax nag dafa jàppoon ni ah mën naa rëcc ci tundaw Tamba woowu ba kenn du ko teg loxo bi loolu amee mbokk internet yi ñu daal di koy def garde à vue lañ koy toppee mooy ku et blessure volontaire maanaam jël sa ngànnaay cor ko nit mu am cay gaañu gaañu ci loo xam ni yaa ko tey ci sa teeg bakkan loola itam am li ñu duppee une infirmité permanente maanaam mu nekk loo xam ni itam laago nga jural ka nga cor waaye nag jural nga ko loo xam ne ci àddunaam loxoom boobu dootul bari njariñ moom i jàll nag defeere nañ ko waaye bañ ko defee mandat de dépôt ba pare ba mu defee mandat de dépôt ba pare mbokki internet yi daal di nañ koy nag indi ci tribunal bu grande instance bu Tamba ngir mu layoo moom sàmmkat bi lee daal dinay ñëwaat euh, nettali bu baax a baax mbir mi ni mu demee ni coow li dikkee ak na mu daal di faagaagale loxo morom mi nee na amul woon intention di blesser xaritam bile ndax na daje nañ ci rootukaay gi ku ne taxawal say jur ñu bokk benn añ yendoo waxtaan ba naaj wi tàng nee na muy daal di jël am ndox sutti ko ko mu mer bu fut xamatut fu muy ne mu daal di jël jaaseem cor loxob droite bi nee na lii la mbir mi demee waaye nag ku tooñ daal di sañ a jéggalu loolu la wax kon moom la mu def xëy na tayu ko ku ñuy wax maître A Ndiaye nekk avocat plaignant maanaam avocat bi nga xam day défendre moom nee na violence bi nga xam ni moo am ba jur loxo bu rot loolu noonu nee na histoire bu banaan la ci am ndox moo xam ni moo ko waral te nu xëpp ko waa ji loolu nag tax na ba moom ma ngay réclamer moom avocat boobu doon défendre nag ki nga xam ne moom lañ cër loxoom la muy laaj mooy juróom fukki million lay laaj loo xam ni dañ koy tudde intérêt civil parquet ni tam appliqué na loi ndax tribunal bi kon ne na sàmmkat bi cor morom mi ñeenti ati ñu gàll ci ndoddam ñaar fukki million ak juróom yoo xam ni da ko war a fay ki mu cor ab loxoom mbokk yi procès bi foofu la mujjee ci tribunal bu grande instance bu Tambacounda fee yi nii la demee dégg ngeen nit ñi leen ko ñaari xale sàmmkat daje ci barab boo xam ni dañ doon wëgg seeni jur kenn ki mer ndax ndox mën koo xëpp rek mu waddal loxoom jàmbur gis nga fi nu mujjee ñeenti ati ñaar fukki million ak juróom mu doy waar li day wane rek ni gune yi ñoom itam fu nu daje rek seen xelum xale ak seen traité gune day daw ci seen yaram ba lu ñuy def sax dun contrôlé dañuy bëgg jëf jëf joo xam ni après amaana sax ay ay rëccoo cay judd ndax li mu def nii def na ko ba pare waaye rëcc jugi du na te fekk li wolof naan bay wéy na mbuus am na loolu lépp rek li koy waral mooy est-ce que amul seetlu sax tey ñu xoolaat gune yi yor ngànnaay xëy na sax fësal benn loi boo xam ne ci suñu gaal day tax gune goo xam ne boo majeuru rek war yor ngànnaay moo xam da ngay sàmm moo xam ak looy mën a def ndax saa soo meree ket xam nga 18 ans kooku noonu mineur la bu meree jàpp na ni jaaseem mooy mooy armam bi gën a gaaw ngir faj meram ki mu cor itam moom majeur la am na ñaar fukki at ak ñeent waaye itam moom xëy na cor gi da koo bett. ndax xale bu ndaw bu la riiree wut si jaas yi bala ngay yat yati bay def effort mën na la koo cor lu la bett mën la baax na ñu xoolaat ab loi boo xam ni daal ay sanction la képp kuy sàmm ak képp koo xam ni rek dangay faral di yor ngànnaay nga koy jëfandikoo ci anam yoo xam ne du faagaagal wala faat bakkanu nit wala wàññi cëri nit kon mbokk yi fee baa ngi noonu ñu leen wax rek ngeen yokk seeni abonné waaye ngeen koy commenter ak départage partager suñu vidéo saa suñu xëyee man di leen fa sër xibaari faits divers yi ñu ngi leen jaajëfal yaa ñaanal leen kennalug jàmm jërë ngeen jëf